ci arrivé président de la république ci li nga xam ne moom moo jëm ci euh, ndorteel campagne mu doore ko fii ci Touba Mbacké en tant que responsable yenn sentiment nga am instant yi euh, di sant suñu boroom rek bi nga xamee ne président euh, dafa tàmm département de Mbacké précisément Touba ngir ubbi see fi campagne am ñëw ci sëriñam baayam xaritam Mouride sëñ Mountakha Bachirou xalifa général des Mourides ñuy ñaan suñ borom yàggal ko fi te may ko wér président de dafay ñëw sukk ci kanamu sëriñ bi mu ñaanal ko ñaanal ci réew mi jàmm électorale bi ñuy dugg ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim eggale ko ak alhamdulilahi rabil alamina bu fa jógee mu dem Mbàkke def fa meeting de ouverture am doog a démarré campagne am ñuy am mbégte bu baax ñun waa Touba ah, ci ci taamu gu ñu président taamu ah, di profité nag ci occasion bi di wax ne nit ñi nañu teeru président ak dal ah, mitin ci dal ak ci jàmm xam ne ñun ñëpp ñu bokk réew mi xam ne bëgg-bëggu président mooy li Serigne Mountakha bëgg te Serigne bi dafa ñaan keroog altine ñu wàcce ay kaamil ci réew mi ak ci bitim réew ñaan ci réew mi jàmm ñaan ci élection yi ñu jëm jàmm kon jàmm jooju jàpp naa ne waa Touba ñoo ci war jiitu euh, kon ñu ngi woo ñëpp tey mitin bi ñu def ko ci dal ak war wormaal dëkk bi def ko itam ci yar ak i teggin. mobilisation bi moom fi ma taxaw di wax ak yow nii kaar euh, bu yóbbu nit ñi amatul. nit ñi ñi ngi woote fu nekk ngir bëgg a dem euh, ci meeting bi quinze heures Mbàkke mais amatuñu sax oto yu yóbbu nit ñi jàpp naa ne am na ci ñoo xam ne sax dinañ dox pour dem ci mitin ba donc tey mun nañ wax ne ñëpp a wàcc euh, pour teeru président de la République euh, tag tagal ko ànd ak moom ci meeting d'ouverture bi mhm. waaw. en tant président de la République, est-ce que vous êtes confiant actuellement. waaw bien sûr xam nga ñun keroog bi ñu amee confiance mooy ci màggalu Touba gi bi Serigne Touba Serigne Mountakha waxee Cheikh Bass Abdou Khadir mu wax président de la République ne ko boole naa la ak Serigne Touba xam nga ñun keroog la ne ñun président am na li mu bëgg ndax ki fi nekkal Serigne Touba comme booleeg Serigne Touba nga am li nga bëgg te ñun murid yëpp loolu la ñuy wër kon kay li ci des mooy ñu ne ko boole naa la ak Serigne Touba xam ne nag li Cheikh Abdoulaye daan wax rek Serigne Touba moom bu bëggee murid yi ñoo koy defal waaye nag murid yi bu ñu liggéeyalee Serigne Touba Serigne Touba moo leen di fay donc vraiment am nañ yaakaar am nañ xel mu dal ne président day gagné au premier tour loolu moom amuñ ci benn xel ñaar. constance boo xam ne euh, dafay am ci dal ak jàmm parce que comme ni ma ko waxee rek jàmm ji sëriñ Serigne Touba woote sëñ Mountakha ñun waa Touba ñoo ciy jiitu te président Macky Sall taalibe Serigne Touba la président euh, Madické Niang taalibe la ku gagné président Macky Sall la ñuy ñaan mu gagné waaye ku gagné da ngay ñëw fii ci Touba sëriñ bi ñaanal la ki gagné wutit da ngay ci Touba sëriñ bi ñaanal la kon war ñoo def ñaari mitin yoo xam ne dañuy dend ci jàmm ak salaam ak dal ndax yaakaar naa ne sëriñ bi loolu la bëgg te ñun bëgguk sëriñ bi la ñuy loolu moom amuñ ci benn xel moo kii